bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah alhamdulilahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara bu baax baax di am mbégte di sant yàlla bu baax ci tawfeex gim ñu tawfeexal ñu dundal màggal gi ni nga xamante ne noonu la ko euh, noonu la ko noonu la ko sëriñ bi digalee woon ci ñu santale ko boroomam tey jii nag ñu toll ci bis nga xamante ne ci Eh, def eh, ndaje mi nga xamante ne mooy mujj ci xew-xew yi màggal gi mu jëm ci wàllu li ñu woowee eh, cérémonie officielle cérémonie boobu nag ñi nga xamante ne ñoo koy ñoo koy ñoo koy diriger mooy Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou mi nga xamante ne mooy ndawal Serigne bi yor kaddoom waaye mu dénk ko lépp lu aju woon ci jaarale yoon màggal gi ak fexe ba mu ba lépp yemb loolu nag. moom sëñ Bassirou Abdoul Khadir dana fi teew teewal fi sëriñ bi waaye itam dana am ay kilifa yu mag a mag yoo xamante ne danañ bàyyikoo fu nekk ci biir kër yi nga xamante ne mooy kër yu mag yi nga xamante ne kër yi Cheikhul Khadim lañ naka noonu mboolem ñi nga xamante ne ay cheikh lañ yu toppoon Serigne Touba ñiñ bàyyi seen gannaaw danañ ñëw nekk ci gannaaw ki nga xamante ne moo fi nekkal xalif général des mourides ñu teew loolu di yoon wi waaye nag dana am ñoo xamante ne dañ fiy teew mu bokk ci ñi nga xamante ne ñëpp ñooy euh, lu jëm ci wàllu euh, délégation officielle yi délégation officielle yi nag bokk na ci euh, corps diplomatique bi bokk na ci itam corps bi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne mooy délégation officielle bi nga xamante ne état bi moo leen yebal nga xamante ne ministre de l'intérieur moo koy jiite ak mboolem membre du gouvernement yi nga xamante ne war naa ànd ak ñoom chef de service yi ak mboolem ñi nga xamante ne boo bokkoon na ci nga xamante ne ñoom la état bi dénk lépp lu jëm ci yembal màggal gi waaye itam ni ngeen ko xamee am na ñoo xamante ne ay délégation religieuse lañ yoo xamante ne dañuy bàyyikoo fu nekk ci àdduna bi doon ay niti diine waaye ñi nga xamante ñoo bàyyikoo ci biir réew mi doon ay njiiti kër kër gu nekk ci biir réew mi nga xamante ne taaloon nañ fa ab taalub xam-xam taalub lislaam foofa yebal na fa ndaw jóge na fa ñëw fii teew si ci màggal gi sant la Sëriñ Tuubaa boromam waaye dana teew ci ndaje mi nga xamante ne moom la ñu mujj def ngir mu nekk ndaje waxtaan moo xamante ne ay message yu am solo ñoo fi nar a bàyyi ko pour jëm ci àdduna bi yëpp xam naa tuuti ci kanam incha allah dinañ ànd ak yéen ci jotaay boobu fas yéene leen koo jottali na nga xamante ne noonu la gën a matee bu soobee yàlla sur MK TV bu soobee yàlla